Moussa Ndiaye di doom ci sëriñ basiiru Ndiaye Dabaye nekk itam sët ci sëriñ Mor Ndiaye Dabaye ah, tey ñun ñoo ñëwoon fii tey ah, préfet mosul la préfet woo ñu fii ngir am CDD bu mu doon defal famille sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye moom moo waral tey moo convoqué ñu tey ñu ñëw fii. ngir amal sedd bu mu doon defal fami sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye ñuy sant yàlla nag bu baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Serigne Moon Ndiaye Dabaye suñu yaakaar ak ëllëg suñu borom dollu ko leer di ko ñaanal itam Serigne Bassirou Ndiaye Dabaye noonu lañ koy ñaanalee itam xalifa yi nga xamante ni bii jiit nañ ko tàmbale ko ci Cheikh Mouhamed Al Fadil euh, Cheikh Mouhamed Ndiaye Dabaye Serigne Aliou Ndiaye Dabaye ak njabootu Serigne Moon Ndiaye Dabaye gépp nuyoo bi itam ñu di si jiital sëriñ Abibou Ndiaye Dabaye mi nga xamante ni bii tey moom la yàlla teg ci bopp njabootu sëriñ Moon Ndiaye Dabaye di ko jaarale itam ci rakkam sëriñ Abdul Xaadir mi nga xamante ni bii mooy léppam ah jaarale ko itam ci sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Sidi Ndiaye Dabaye ko itam ci sëriñ Abdoulahi ba Omar mi nga xamante ni bii tey mooy caatu sëriñ Moon Ndiaye Dabaye tey nag ñëw nañ fii ci ndégalu sëriñ Abdoulahi Ndiaye Dabaye mi nga xamante ni bii tey moom mooy xalif sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye nga xamante ni bii tey moom moo ñu fi yabal yónni ñu fi jiital ci yónnee bi rakkam bi nga xamante ni bii tey moo yore kàddu njabootu sëriñ Bassirou Ndiaye Daabay gépp muy sëriñ Cheikh Ndiaye Daabay Bassirou mii ñu feggool nga xamante ni bii tey moom la sëriñ bi yónni mu jiite délégation bi mu feggoog rakkam sëriñ Abdou Khadir Ndiaye Daabay mu feggoog rakkam sëriñ Baye Cheikh Ndiaye Daabay mii toog ak man mii nga xamante ni bii may seen rakk ñu waxaloo ma tey may wax. feggoog itam taalibe yi nga xamante ni bii kenn ku nekk am na bànqaas boo téye ci kër sëñ Moon Njaay Daabay rawatina gàmmu gi tey ñoom la ñu àndal ñëw tey ci CDD bi nga xamante ni bii dara warlu ko itam lu dul waajal gàmmu kër sëriñ Bassir Njaay Daabay ku ne xam na ni gàmmu gi ren da cee e, dafa am benn mbas moo xamante ni bii tey yàlla dogal na ni ren dañoo fas yéene ànd ak moom ci gàmmu gi waaye nag ni ñuy ànd ak moom mooy ku ne xam ne ne sëriñ Abdoulahi mi nga xamante ni bii mooy sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye jox na sëriñ Cheikh mii nga xamante ni bii moo jiite njabootu sëriñ Bassirou Ndiaye Dabaye gépp nga xamante ni bii moom mooy porte-parole bi ah moom mu defar ay max yu bari nag ah, ay masque yu bari sëriñ Cheikh mi defar na ko wut na itam ay gel yu bëree bari bari bari bari bëri waaye nag ku ne xam ne gàmmu Dabaye mbooloo ma fay daje kon nag ñu bëgg maanaam lu ñu waaye mën a jàppale ci gel man ñu ko jàppale ci masque itam du doy ndax ku ne xam ne ne Serigne Cheikh mu defar bari na waaye itam lu mu defar itam lu mu bari bari bari itam mbooloo ma itam dana takku dana bari ba ba itam lu ñu waaye mën a jàppale itam ñu jël ah ñuy sant yàlla bu baax nag di gërëm chef de service yi nga xamante ni bii teew nañ fii fas yéene ànd ak ñun gàmmu kër Serigne Bassirou Ndiaye Dabaye ah ba ñu ñëwee itam ah wax nañ leen ñun li ñu bëgg ak li nga xamante ni bii mooy tax gàmmu kër Serigne Bassirou Ndiaye Daba yi mën a yéwén ñoom it bañ leen waxee li leen wax it ñoom it dégg nañu am ni yéen itam suñu bëgg-bëgg itam ñu defal ñu ko comme ni ñu ko bëggee kon nag duñ def dara lu dul ñaanal leen yàlla ñoom ba seen yéene ak seen mbébét ci gàmmu gi yàlla mën na leen defal lu kawe seen jot. ñuy sant itam gouverneur dana la région de Thiès Mouhamadou Moustapha Ndaw ñoo koy sant bu baax di ko gërëm di département muy monsieur Fodé Diagne. Euh, muy monsieur la Moussa muy monsieur Moussa Diagne Moussa moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax gis nañ bu baax. Mhm. monsieur le sous si ñoo koy sant di ko gërëm sëriñ bi di wax ni gàmm gi mu ngi si woo ñëpp mhm. bàyyiwul kenn tàmbalee ko ca monsieur le président de la euh, république Macky Sall sëñ bi mi ngi ko ci woo ak gouvernement am ñëpp bàyyiwul kenn. di ci woo itam parti opposition yi nga xamante ni bi ñoo nekk ci biir dëkk bi ak ñi nekk ci yenn réseau yi yëpp képp kuy seet dëgg suñuy kàddu wala nga di wala nga di ñu seetaan ci télévision bi sëriñ bi mi ngi lay woo ci gàmmu gi di ci woo itam monsieur Talla la maire de la ville de Thiès sëriñ bi mi ngi koy woo ci gàmmu gi nga xamante ni bi moom la ñuy amal muy gàmmu kër sëriñ Bassirou Ndiaye Dabay di ci woo itam monsieur le maire Lamine Diallo sëriñ bi itam mi ngi koy woo moom daal képp kuy maire nekk ci dëkk bi sëriñ bi mi ngi lay wu ci gàmm gi bàyyiwu ci kenn taalibe yi itam ah sëriñ bi itam mu ngi soñu ñëpp ci képp koo xamante ni kii yaa ngi ñëw gàmmu Daabay rawatina gàmmu kër sëriñ Bassirou Ndiaye Daabay sëriñ bi joxe na ndigal ni na nga sàmmoonte kër docteur masque yi nga xamante ni bii sëriñ bi joxe na ndigal ni képp kuy ñëw na nga ko takk sëriñ bi joxe na ndigal ni na nga ko takk sëriñ bi nee na itam nañuy sàmmoonteeg gel yi sëriñ bi itam nañuy wattu ko itam li nga xamante ni bii mooy waral euh, mbas mi di fi des sëriñ bi daal nee na daal képp koo xamante ni ki daal yaa nga gàmmu si hmm. ndigal li mu jox sëriñ Cheikh daal mooy nanga nga sàmmoonte kër docteur ndax dañoo bëgg a gàmmu si jàmm hmm. jeexal ko ci jàmm hmm. dara bañ fee wàcc ci loo xamante ni bi daal mooy waaw yaram waaye lu jëm ci wàllum hygiène itam loolu interpellé ngeen ci ku ci mel ni médecin chef de district euh, lu jëm ci wàllum élément vraiment de la santé qualifié yoo xam ne nii war nañ fa teew mais également lu jëm ci wàllum médicament loolu sàkku ngeen wax dëgg yàlla mu am te doy euh, sàkku ngeen également lu jëm ci wàllum lave mais lu jëm ci ay gel lu jëm ci ay masque te loolu comme ni ma ko waxee mooy jamono ji moo ko laaj loolu déglu nañ ci chef de service yi tour à tour médecin chef de district euh, sous di d'hygiène mais déglu nañ ci également Croix-Rouge ñoom ñëpp incha allah jël nañ engagement ci ni alors bu ñu mënta def lu ëpp liñ defoon daaw li defoon li ñu defoon daaw moom dara du ci fell dara du ci wàññeeku waaye ma bëgg ci dolli que ni surtout li nga xam ni moo jëm ci wàllum gel yi ak wàllum masque yi comme niñ ko defee ci CDD yi passé dinañ jéem a xool li nga xam ni moom la ñu dese ci ay masque ak ci produit d'hygiène euh, ñu yore ko fii au niveau du comité départemental de gestion des épidémies loolu aussi xam naa ne bu ñu demee niveau régional dinañ ci interpeller waat ah le gouverneur mi nga xam ni mooy présider le niveau régional moom it bu fekkee am na yu mu dese ñu boole ko éventuellement lu district am comme ça ñu man leen ko gën a jàppale foofu sax dama ci kontaan trop bi ma déggee Sénélec jël engagement bien que nekkul sax càkkutéef buñ ko jëmale woon waaye ñoom ñoo gis ni jamono ji laaj na ko te yàlla def na fàggu nañ ko kon dinañ ko mën a baaxe également baaxe également famille bi maanaam lu jëm ci wàllum masque ak lu jëm ci wàllum ci wàllum gel loolu aussi woo nañ ci la ville la ville de Thiès waaye du moom rek la commune Thiès noor également su mënoon a jàpp ci masque yi ak gel yi boole kook lam daan def at yi weesu loolu aussi du ci du ci wàññi dara wax nañ également lu jëm ci wàllum ndox mi biñ nee ndox nag dañuy daal di joxoñ seen eau waaye itam le service de l'hydraulique c'est vrai que hydraulique moom ñu ngi koy xaar ci ah lu jëm ci ay ñoom cene baak lu génn biir Thiès waaye nag ànd bu rafet la ndax bu seen o jiitoo en milieu urbain bu gestoo war naa gis alors hydraulique ci kaw nu mu ko war a jàppale donc euh, seen o incha allah ñoom aussi dinañ jël engagement def li nga xam ni alors euh, moom lañ daan def loolu tamit ci lu ñuy suivre la ci lu ñuy topp la euh, hydraulique mi fi teew defe naa ni taataan na bu baax li nga xam ni moom la comité d'organisation bi di xaar ci moom mooy daal fexe ba ndox moom mu ngeen ko séqee ak seen eau mu nekk luy doy te loo xam ne nii aussi ci am anam yi koy amee mu bañ a am benn rupture mu bañ a am benn benn ndog-ndog wala boog bu ñu demee ba nga xam ne laaj na ko alors bu ñu nee pëkk-pëkk hydraulique mu mën a daal di réagir pour mën a donc joxe ndox mi nga xam ne ñu ngi ko ciy xaar surtout en terme de en terme de citerne. lu jëm ci wàllu assainissement aussi abordé nañ ko alors te assainissement moom daanaka day ñëw rek ànd ak moom it service d'hygiène parce que bañ ko tuddee muy ONAS alors xaar nañ ci moom wax dëgg yàlla jëm ci vidange fosse septique yi c'est vrai que nag euh, secteur la boo xam ne nii xañ na maa ngi koy bëgg a xam seen mébét ñoom it wax dëgg yàlla euh, sori na euh, seen volonté gis nañ ko parce que déjà la fait que chef de service bi en personne bien qu'il soit malade mu déplacé wu ñëw loolu mooy wane ni vraiment bis bi jox na ko gëddaam mais dafa am loo xam ne ni lu bari daf dul dépendre ci moom au niveau régional moo tax gannaaw ba mu ko taataanee dafa jël engagement ni incha allah dina ko jottali ci ni mu gën a gaawe ay kilifaam pour ñu mën a pour ñu mën a réagir ba def ko ni ngeen ko ni ngeen ko bëggee parce que évidemment euh, famille boo xam ne nii ñu bari dañuy jóge ci réew mi di ñëw même bu ñu fa doon def benn fan sax mais séjour boobu ak mbooloo moomu il faut mu bàyyi jeexital nest pas ci biir ci biir dëkkiin bi ah ak ci nga xam ni en tout cas moo jëm ci wàllum cet geeg yooyu loolu moo tax nin ci wooye woon service di d'hygiène bu gàmmo gi jeexee mais noonu lañ ciy wooye également service mel ni ONAS avant mais également après aussi su ma nee su ma nee nekk euh, joxañ nañ élevage aussi ndax ku ne gàmmo ni bernde hein ni lekk ni naan mais la ngay lekk aussi da nga koy lekk pour mën a gàmm eh, waaye doo ko lekk pour euh, da ca loof moo tax dafay laaj ak caytu goo xam ne nii service yi nga xam ni ñoom ñoo koy taxawee muy service de l'élevage ñu saytu jur gi nga xam ni ñoom la ñu war a lewetal mais également contrôler saytu gannaaw ba ñu lawetalee ba pare lu jëm ci wàllum ndawal geek yooyu am nañ également beneen liggéey boo xam ne dañ ko liggéey lépp lu jëm ci cuisine centrale mais également fépp foo xam ne nii site d'hébergement la te mu am un foyer ardent wax nañ ci wàllum sécurité sécurité aussi ñu jàpp ni lu am solo la ndax xañ na bi ñu toogee fii di waxtaan lu jëm ci gàmmu gi comme ni ma ko waxee keroog xañ na am na ñeneen ñu toog faneen di xool ñoom it nan la ñuy raase démb alors ñooñu il faut que ñu teel na waajal ñoom it euh, sécuriser nga xam ni koñ bi wax nañu léegi ni li wër koñ bi moom xañ na leerandi na waaye la jëm ca raay ba nag moom moo nekk loo xam ne ni lëndëm na loolu woo nañ ci Sénélec pour bu leen mënee jàppale en rapport avec la mairie ñu xool éclairage public bi naka lañ koy gën a jooyantee waaye police aussi mi ngi fi jël na engagement pour que kenn bañ a lëmbe kenn bañ a def loo xam ne nii naka su dul noonu la mais en même temps bu jour ba ñu xool naka la ñuy gën a mën a organiser circulation bi dem bi dikk bi parce que dëgg digal la boo xam ne nii xañ na dinañ dem ba oto yeeg moto yeeg nit ñi war koo bokk te loolu day laaj organisation kenn ku ne xam fa nga war a mën a jaar te loraange te loraange du am même engagement boobu aussi moom la waa sapeur jël euh, du ñu faral nag di leen wax yan lim ngeen war a ngeen war a indi ndax stratégie bi moom dañ leen koy bàyyee ñun commande bi la ñu am léegi nag nangeen di def yéen ba la ñuy xaar ci yéen ñu mën koo gis mën koo am ci yéen loolu yéen la c'est la stratégie yéen ay xam alors la nombre d'éléments bi nga xam ni alors moom ngeen di mobiliser ak euh, jumtuwaay yam war a àndal en tout cas daal rafetlu nañ engagement bi mu nekk ni incha allah bu ñu defut lu ëpp li ñu defoon daaw en tout cas du yées euh, lu jëm également ci wàllum wàllum ceeb bi loolu ki nga xam ni mooy adjoint inspecteur bi wax na ko léegi alors. Euh, ñoom déjà dañu anticiper woon xam nañu gàmmo yi am Thiès xam nañ également besoin yi ñoom teeloon nañ ko jottali niveau central ñi ngi toog di xaar d'ailleurs sax ci biir kàddoom nee na am na yu commencé jote ñëw donc ñu am yaakaar que ni alors li des dina ñëw ci anam yi nga xam ni en tout cas moom lañ koy moom lañ koy xaare je pense que daal loolu lañ fi jotoon a taataan bu fekkee ni fàtt